asalaamualeykum mbokk yi bàyyi xel euh, chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di àndateeg yéen ci xibaar bu tiis bu dal ci kaw euh, sénégal gi yëpp rawatina mond sportif bi di génn àdduna ki nga xam ne nekkoon euh, ancien international nekkoon itam sélectionneur ñu di ko wax Joseph Koto moom nag euh, mi ngi génn àdduna ci alxamis ji di jeudi 14 octobre 2021 ginnaaw bu ko ab malaise daaneele ci benn hôtel euh, mbokk yi kii di Joseph Koto mi ngi génn àdduna ci bi mu amee juróom benn fukki ak benn di 61 ans nekkoon na nag euh, ancien joueur nekkoon entraîneur u équipe nationale ci ñi nga xam ne moins de vingt trois ans lañ nga xam ne seen ñaar fukki ak ñett matagul kon nag euh, Joseph Koto nekkoon na figure emblématique ci football sénégalais bi ci fàttali mi ngi génn àdduna ci alxamis ji di jeudi yamoo 14 octobre 2021 ginnaaw bu ko ab malaise daaneele ci benn hôtel. mbokk yi ci turu yaatal xeltu yi ñu ngi koy jaale sénégalais yëpp di ko jaal monde sportif bi yëpp rawatina famille am jàngeen jëf wasalaam